laaj bi am na solo loolu ci kooku nga xam ni moo génn àdduna di Serigne Ass Guédé mhm. euh, suñu deuxième thème laata ñu ñëw ci troisième di lépp lu soxal euh, li nga xamante ni euh, mooy guddi laylatul xadr mhm. le 17 bi incha allah koy mhm. dañuy ñëw ci deuxième thème bi ci wàllu Serigne Touba koor moom am na nu ko doon dundee mën nga ci ñabal tuuti rek waaw bayit bi ma tàmbalee rek soxna Ndeye faatu muy yaa xayra day fin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi rek daf lay daal di jox ni sëriñ bi jàppe weeru koor ndax mi ngi ko naan yow maa ngi lay tatagal yow gan gu màgg gi nga xam ni ahlan bienvenue welcome waaw mooy sangu weer yi ndax weer la woo xam ni ci la sunu borom wàcc alxuraanul karim guddi gi nga junj léegi guddi googu la ko wàcc muy guddi laylatul xadar moo tax ñu naan la nuit di destin sëñ bi dafa fonkoon lépp luy jaamu yàlla te xam ni weeru koor dafa bokk ci cinq de lislaam yi juróom yi nga xam ni moom mooy mat ci yow ñu soog laa mën a tuddee ab jullit gannaaw boo waxee seet baatu seede yi julli ñu gàll ko ci yow asaka ñu gàll ko ci yow gàll ci weeru koor boo amul benn gànt ak li nga xam ni mooy aj maaka ci kaw bu fekkee am nga alal ju ko ak wér gu ko mën kon sëñ bi ni mu fonke woon sunu borom fonk léppam weeru koor nag dafa xam fi mu tolloon sunu borom sunu borom dem ba ni jaamu yëpp weeru koor moom mooy li nga xam ni mooy fayal boppam daldi di ci wàcc alxuraanul karim def ci benn guddi goo xam ni itam dafa ni laylatul xadri xayrun min alfi shahrin maanaam benn guddi gi moo gën junne weer mill mois 1000 mois bi ko calculer soxna Ndey Faatu toll na ci juróom-ñetti fukki at ak ñett 83 ans loolu bareetul ñu koy dund suñu jamono ji te boo màggalee guddi googu am yoor gu toll noonu daan ci ñëw léegi ci ni nga doon junjee léegi laylatul xadri sëñ bi nag fonkoon ko lool ba saa su weer wi musaan dëmmal rek. biir Chaban day bind ay xasaayit di ko gàttandoo weer bi naan ko mm. gan gi yàkkamti naa nga ñëw yegsil xam nga kooku wute naag faaleen yeeg jaañeen yeeg jangeen yi nga xam ni buñ jubee weeru koor ñu commencé tiit moom nag daf ko daan yàkkamti mu ñëw di ko gàttandu mangoog waaw ñoom ñoom sax dañ daan dañ daan gàttandoo ñaari weer dañ daan woor rajab ak Chaban déedéet waaw sëñ bi moom da daan boole rajab ak Chaban ba pare nag dugg ci biir Ramadan bu Ramadan jeexee nag ñu gungee ko juróom-benn fan yi nga xam ni sallallahu alayhi wax na ni bés boo ko defee am nga yoolu ku woor at mi yëpp. juróom-benn fan yi ngay teg ci bu ñu waree juróom-benn fan yi itam firiwul ni rek danga nga war a wori rek daldi di teg yeneen juróom-benn fan ndax bésu it bëgg nañ ci. it jullit bëgg nañu jullit bi happy jullit bi bég léegi mbégte moom itam bëgguñu ko yemale ci benn fan lu ci bari lislaam daf lay digal nga bégal ñetti fan ndax liñ ci jublu mooy ki ko mënul ci fan wu njëkk wi ñaareelu fan wi mu def ko wala ñetteelu fan wi mu def ko looloo tax léegi dañu bëgg boo waree bul daal di sësal sax juróom benn fan yi waaye fexeel ba weer wi nga xam ni mooy weeru kori fexeel ba am ci juróom benn fan moo tax ñu bari dañ naan comme que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa fonkoon bésu altine ndax ci la ko yàlla wàcce woon ci àddina daan woor bésu altine fonkoon itam bésu alxamis daan ko woor ngir li muy waajal ajuma ji moo tax ñu bare dañuy def di woor bu ñu waree ñuy def altine yi ak alxamis yi boo amee ñetti altine am ñetti alxamis da ngay daal di am juróom benn fan yooyu yàlla bindal la tuyaabay ku woor at mi yëpp. sëñ bi nag daan dundale weer wi nu yéeme wax na ni boo mësaan bëgg dara ci moom. mu xaw la jafe bu weeru koo ñëwee demal daf lay yomb masalan ki doon wut ci sëñ bi benn téere mu jafe ko gis ko sax jafe bu weeru koor ñëwee sëñ bi day accessible boo junjee téere wi rek daf lay ci booleel yeneen wala leneen loo xam ne sax yow ñaanoo ko woon ngir mbëtt mi mu am ci weer wi day gën a tabe day gën a ubbeeku day gën a yaatal boppam nit ñi lu mu yor itam ci biir kër gi rek day génne di ko jox aji woor yi fonk li nga xam ne mooy jaamu yàlla ci am daan ci bind nag bare na ci ay téereem yoo xam ni chehru ramadan ama aksasin chehru ramadan ama nangam mooy poème yi maa ngi ko jagleel weeru koor atu sàngam jagleel ko weeru koor atu sàngam am na ci diiwaan boo xam ni loolu rekk ci nekk ak lu bokk la nag lu mel na xasida gii ma la wax nga xam ni moom la ko daan gàttandoo bu demee ba ci digg bi itam am nag yeneen xasaayit lu mel na yaa mukrima day fi jaaran kaana aw zaara moom it ci diggu weer bi muy bég ci loolu bu weer bi demee bay tàggoo nag mu mel na dafa am ganam gu mu bëggoon gu mu soppoon xol bi commencé nag ni weer wi naan yaasal busharaati bil ayaati wal suwari nga xam ni di méttit gan gu màgg gii nga xam ni miinaloon nañu boppam ñi ngi nekkoon ak moom booba ak léegi di yokk suñu ay jaamu yàlla di mbég ci xéewal yi ci suñu borom def mi ngi tàggoo kon noonu la fonkoon weeru koor waaye yàlla defoon ko ci itam ay nattu soxna nday faatu ndax yii ma la wax nga xam ni def ko daan dundee ci njaareem nga xam ni sëñ bi julli fonk gi mu fonkoon weeru koor waxtu julli juróom yi dafa am ñoo xam ni li doon seen liggéey ci biir kër gu mag njaareem mooy mbubb mu bees wala mu jóge ci póot mu bees waxtu julli wu nekk moom lay sëñ bi sol ngir fonk weer wi ak fonk waxtu juróom yi nga xam ni julli suba am na koo xam li liggéeyam mooy balaa sëñ bi dugg ci jàkka ji néeg bi muy waaje daan fa teg mbub mu bees def ci sikki bi def ci cuuraay yi mu bees sàq lay doon moom lay jiitee suba bu tisbaar jotee dana am koo xam ni itam moom loolu lay defar li muy jiite tisbaar tàkkusaan noonu sëñ bi bu woyof weex tàll rek waaw weex tàll bu woyof lay doon waaye toujours danaan wax moom du jox sunu borom lu màggat mës na nit mës na ko di wutal naanaa sax Euh, ñu ni naanaa bu bees de amul mu ni ñun suñu diine duñ ci def lu màggat mooy maanaam ni mu fonke woon euh, julli du du du benn njàpp du ci julli ñaari yoon fonkoon demoon ba yegg ci itam benn mbubb du ci julli ñaari yoon waaye yàlla nag nattu ko ci ci tukki bi xam naa fii lañuy jeexalee ni mu fonke woon weer wi bi mu nekkee gamoo nekk ci xur yu metti yooyu ñu isolé ko fa weeru koor sëñ bi fu mu mës a nekk moom ndax bu dul weeru koor sax dafa daan war ndakaaru gi bi mu fiy jëkk ñëw koor la fi indaale bésu alxamis le 18 septembre mu jógee ndar bi ñëw fii koor la fi indaale gabon nag yàlla nattu ko ndax dañ ko isolé xamu fa kenn booba nee na bi ñu koy yóbbu gabon ku xam yàlla wala ku ci ku koy jéem a xam sax amu fa amuloon ay jullit ñooñu ay animiste rek la ñu woon daanaka Afrique centrale googu bu koor gi mu fa jëkk def bu ndogu jotee du am lu mu ndogoo te xam nga dañu sopp waxuma ndogu waaye sax nga teel ko def ni ñuy soppee yéex a xëdd nga xam ni sëñ bi da daan mujj xobu garab yi ko tiim lay jël yëy ko ndox mi ciy génn mu jaarale ko ci putam wan ni dog na koor bi ba subaati muurum koor it ku nekk xam nga ni mu amee solo ci weeru koor ndax dañ naan jullit yi wóor yëpp seen koor dañ koy teg ah, day am fu mu tag boo joxee muurum koor nag koor gi daal di yéeg yegg muurum koor wax na ni bu ci mësaan tollu day jël ay aaya alxuraan def ci ay way jox ko addi rasulullahi sallallahu alayhi mu nekk muurum kooram ndax boobu amul xaalis amul ku fay fekk sax di ko jox loo xam ni war na ci mën a jële muurum koor waaye nag yàlla mujj na ko fay ay koor yoo xam ni njaareem ba fi mu nekk nii njaareem boo demee sëñ bi koor naka jekk fu mu mës a nekk dafa daan digle njàngum alxuraan bis bu nekk juróomi kaamil bu weeru koor ñëwee nag kaamil yi kenn du xam lim bi na mu toll yàlla defaloon nag itam téere boo xam ni ñu koy wax fulkul masxoon muy trésor bu nu ñoŋal moom la ko tuddee nga xam ni lu bare la ci wax sunu borom ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam téere boobu nee na yàlla def ko ci defal loo xam ni bëggul sax doomu aadama di ci teg bëtam nga xam ni da daan def weeru koor ba weeru koor gaal gi gaal gi téere bi nekk muy maal bi téere bi nekk lan daan indi lal ay tissu yu rafet teg ko ci mu ne xool leen gaal gi rek gaal gi def téere bi gis gi rek doy na téere boobu fi ñu nii nag yàlla defal nañ tawfeex weeru koor wu nekk ñi ngi koy jàng njaareem ba fi ñu nii fulk bi tàmbale na moom la sëñ Muntaxa di jiite at mu nekk ci njaareem kon yàlla loolu itam xéewal la goo xam ni sëñ bi da ko xéewale waa Sénégal ci biir weeru koor